daraja boo ko rañaanee jet jett la wërsëg boo ko gàttandoo mu dëpp waaye am judd diis ko montali ab laami